ginnaaw sama mbokk yi way juru ndongoy Sénégal wolof dafa daan fagaru moom moo gën faju xoddeeku bala ngaa lakkale li ñuy ñaan wey jur yi ñoom ñooy ñu dal di wax seeni doom ñu toog ci kër gi fexe ba ñuy jàng seeni leçon ci biir kër gi di leen jàngal nan lañuy raxasoo lu mu néew néew fanweeri seconde wàññi nuyoo bi oh. moytu rassemblement yi ci biir kër gi loolu moom moo ñuy aar ci coronavirus. Stop Covid-19. Je reste chez moi et j'apprends à la maison.